ça fait tellement mal man bi may wax ak li may wax ak yooyu yëpp am chair de poule te xam ni sénégalais yëpp seen yaram mu daw parce que sénégalais yi dañu le. Euh, j'ai même envie de pleurer mais dañu le bëgg ba nga xamante ni te nit ki boo ko bëggee doo bëgg euh, dara dal ci kawam mais heureusement yaa ngi nekk jàmbaar voilà et on commence comme ça cette émission yaa ngi nekk jàmbaar yaa ngi dëgër yaa ngi continuer say activités yangi euh, continuer nek euh, femme patron de presse yaa continuer nek euh, femme chef d'entreprise yaa continuer nek ambassadrice bi nga doon ci ONG yu bari xaaral ma indil mouchoir est-ce que quelqu'un de l'équipe mën na ma indil mouchoir li ñu bëgg a wax yépp xam naa bu ñu ko waxee mën nañu yàq soirée bi ma bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi Coumba Gawlo en attendant qu'on amène euh, quelques moussoirs pour Kumba euh, voilà, on vient de démarrer et tout le monde pleure parce que euh, voilà. Et c'est ta fille qui amène le moussoir. <laughs> Merci Kumba. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Abdoulaye mettre, mais il y a un cool aussi. Voilà.